daam safar jógal ca xalam yaa fi way été way suwaasir murit yi di bég wayal teraanga yi teraanga sëriñ bamba yaa ngi fu dara ne tey ahmadoo ko def moo ko liggéey nan topp ndigal ndamal murit bi xam li ko war mooy topp ndigal màggal gi mooy ndigal lu wér moo mat a jëfal màggal gi màggal ko bu wér daal di koy dundal di jàng kay ñaana kay bernde topp ndigal màggal gi day ndamul lislaam tey li mu ñu defal moo ñu sagal moo ñu sigil bés bee ñu teral ku fi am jàmm bay sant di suite waral ngay sant bés baa ngi bàyyi daam yaa ma leen gënal loola waaye man di wax itam bambaraw na leen màggal gi firnde la si bés bii bu ni mel amul li an haasal yow mu yow mu sukkur wadduha aka waxtaan ne daam jàng xasida ñu lay teral xeetu cant gi nii la dee ko bàyyi xel iqra bismi rabbika jël xasida tofal bu nu xëyee na sañ say xay te selite yu ñuy sekk jes ne solal palmaan lépp teraanga la curu ceraak laa fa maxtu ay maraakiis xaftaan bu jot kurus kaala lii teraanga la faslun fii bernde bernde it ci la café Touba ki meew si xew du tëja lépp teraanga la beñeb fariñ ak mburu mbaa sax moom beñeb dugub keke ki met leen dañuy servi cay teraanga yi taaj raxasulal napp teg booli bernde nii lay demee ñuy servi ndox yu sedd yi wala lépp teraanga la ñee yu xar ñey ñooñ ganaar ñey saa fixati naa tekki ko pin uwaa yaa nga lépp teraanga la ceebub siyeer ceebu ngot cerey taalaala ja salaat sun orne dañuy servi lépp teraanga la ñeent bool juróom bool dabi màggal du xat du am seeñu du am ñiit teraanga yee doy tu fekk couscous mbaa macarona bool yaa ngay tege vermicelle ba mbaa petit pois lépp teraanga la banaana ak orange raisin xeeti bernde la soow piir ak day teew ndax teraanga la musuwaar asete kirdan afta bernde la ata yaak singom dinak tegu sa lépp teranga la kilim ye di sedd ventilo yu ëpp frigo yey seral murit yi di bég màggal ga neex lépp teranga la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu